jàmbar tiggi jàmbar dëgg bu nu koy wax xel yépp day daj jëmm ji di wuyoo ci turu Astou Faye ñu gën koo xam ci madame fay nekk soxna ci monsieur le ministre Mansour Faye di koy jàppale jigéen ñi ci seeni yëngu-yëngu ak mboolem loo xam ne sumb nañu ko te mu tàbbi ci ay noppam. di am na nag bu baax ndax boobu ba léegi madame Faye toogul taxawul. mi ngi dem ak dikk mi ngi laaj lu ñu war a def lu ñu war a dépenser fii lu ñu war a kii te loolu rek fierté la ci ñun ñëpp nag waa 26. ndax tey buñ ko defee nii waa 26 yëpp dañ ciy xam dara ci kàttanu yàlla ak yërmande mu mën-mënam kon ñu ngi leen di sant yéen it yéen ñi fi teew ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi leen di sant bu baax bu ngeen demee ci madame Faye ngeen gërëmal ñu ko bu baax ndax ku defal li ay xale defal loo ko xale yi way jur xale yi nga ko defal te way jur yëpp daanu kontaan ci kàttanu yàlla ak yërmandeeg mën-mënam kon yal nañu yàlla gën a jàppale waaw te bu beneen bu fileeg déwén incha allah mu gën a yaatu ba ñëpp jot ci ci kàttanu yàlla. fii ci Parcelles Assainies unité 26 bi jigéen ñi dajee ngir organiser kermes daal di bégal xale yi xel yépp dafa dëppoo daal di daj madame Faye ndax nit la koo xam ne tëjalut kenn ay buntoom te mboolem lu mu digaale ak ay moroomi goram faaw mu matale ko ba mu mat sëkk. li ni mel waral mu indi fi ay teraanga yu am solo ngir jàppale jigéen yi jàppale xale yi. taxaw leen ci fànn yu nekk. maa fi ma dam Faye te bi ma ko xamee boobu ba léegi gàcc ngaalaama elle est toujours pareille musul changé baax reetaan kaf loo ko wax rek mu ne la amul benn problème bu ko neexoon mu ne wakaam laa basé wu wakaam laay yem mais foo ko woo mu wuy si la loo ko wax. mu ne la amul benn problème boole ko ay ree nag neex dret ba bëgg a dee bu ko ñëpp jàpp defoon nii amaanaam nit ñi duñu sonn wala de euh, méttitaayu dëkk bi nit ñi duñ ko yëg marché bi tamit lu mu métti bagage yi cher amaanaam duñ ko yëg bu ñëpp defoon ni moom bu ñëpp defoon ni moom macha allah waxuma ñun dinañu jooy jigéen ñi waaye ñuy jooy du ñu bëre kenn kenn dootul jooy parcelle fii am na ñu fi ne waaye man de xawuma leen gisuma leen dégguma leen fenn ndax bu ñu defoon ni moom amaanaam duñu egg wakaam ñu egg ci moom fii la ñuy yem mais ñàkk leen gis ñàkk leen dégg ñu nekk seen ruq di def si seen entre ñoom lu leen neex moom nag dafa jóg ne dama koy décentraliser damay jóg pour jàppale jigéen yi damay jóg pour jàppale xale yi te bi ma ko xamee ba tey si loolu la nekk ci lool lay dox ah. musul mer musoo ko fekk fu mu fasee kanamam bokkul ci ay détails bokkul ci coow moom daal liggéey la xam bi mu jógee ba tey mi ngi ci liggéey mi ngi si jàppale jaam yi foo ko woo loxo ma nga ca du korite du tabaski du tamxarit du lenn ci loo ko woowul te du ñëw ñàkkalul dara fayda ñàkkalul dara fayda xale bu ndaw fu mu ko yëkkati mu ñëw ñu fi xam bëriwul mun naa ne man la fi gën a xam mais bi ma ko ko waxee daf ma ne amul benn problème nongo dinaa ñëw li ma mën dinaa ko def bu ko neexoon lii du ko def ñun nag ñu ngi ci ginnaawam tey ak suba lum ñu woo bu ñu ne dee leen fii ñu dee fa ñu nag moom ba géej gi fer fu mu dee ñu dee fa lu mu gor ñu gar ko ñu nag moom activité bi kermees la bu ñu organiser euh, marraine ko mi ngi dëkk ba wakaam ñu marraine ko ko mu nangu ko et pourtant y des gens ñu nekk fi ñu ngi ko mën a marrainer mais parce que ñun gisuñu leen xamuñu leen moom mi nekk ba wakaam moom mu ñëw ba fii mu fës mu nangu fee nangul nangul ñu kon ñu jël ko marraine ko ko donc kermesse bi kado yii la indi pour xale yi mm. bu ko neexoon du ko def bu ko neexoon enveloppe kese lay def dugal ci cent 100000 mbaa 200000 mais defu ko daa indi ay cadeau te cadeau yi jeexagul bu subaa moom bii ñëw si lay indi yeneen yi lii avancement. avancement la donc ndax maa ko dana indi comme ça sub ñu mën ko placer suba yeneen yu muy indi ñu placer waat ko encore boole ko si man moom manqué na gàcc ngaalaama te jërëjëf yal na ko yàlla may gudd fan ndax ñay kenn du ñaanal gudd fan dong nga koy ñaanal yal na am gudd fan li mu bëgg yal na ko ko yàlla defaral moom madame Faye ñi ko teewal ci Parcelles Assainies unité 26 te indi woon yile teranga am kontante ak mbégte banu nu tànnee jàmbaar di madame Faye Dari di koy dara jaale bile bés li ni mel nag bettu leen benn yoon ñoom ay ndax jëmm la joo xam ne ku ko woo ci lu baax mu fekk si la ba sa sedd. balaa bu ñu santee yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwoon fi représenté madame Faye indil ko li nga xam ne moom moo ñu ko yónni jàppale ko waa 26 si seen kermesse mu comme sa moo ngi nii moom lañ teg nii benn partie bi moo ñëw mais am na loo xam ne dina ñëw suba incha allahu rabi parce que bu la neexoon ngeen yem seen gox ne madame Faye dëkkul parcelle bokkul fii. waaye da ngeen jël seen mbir décentraliser ko ñëw ba Wakaam do do mariner ko seen mbir mu doon euh, kermes boo xam ne yéen a ngi koy organiser fii si école 26 madame Faye nag moom comme li nga wax rek xeebalul kenn bésam lii nag benn parti rek la avancement rek la mais lii lii lii di ñëwee dàq parce que madame Faye dafa doon koo xam ne euh, politique de développement lay def politique participative lay def kon moo waral tey fu ko waay woo tey moo xam mu néew moo xam mu bari dina juk def ci dolem dox ak dox ak ay tankam def lim ci man ci barke yonente bi sallalahu alayhi wasallam dong defu ko dara lu ngir ngistal wala dara dedet wante dafa fek ni jamono moni ni toll jamono ji toll na fo xamne ne ku nek li nga bok bul xaar ku la ci wo li nga mom bul nako ko jël ko bu mu mat te mom ci lay dox ku ko tuddee bes mom da ngay ne nga ko bes kon nag loolu moo waral tey suñu teewaay fii ñu doon ko indil kadoom yi bu jox ko teg ko si loxo ndongo mu teg ko si loxo bàjjenu gox bi pare yóbbul leen ko seen école ñoo xam ne seen élèves yi ñoom ñoo ko moom lépp ngir lan ngir jàppale ndongo ak dooleel ko ci bërëbam bii asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. li ni mel nag di wàll social ak xeeti teraanga tàmbalewu ko fii rek mbooleem gox-goxaat yu nekk ci biir réew mi di Sénégal ña fa yeewoo bu nu miinul xar kanamam it miin nañu ay jëfam muy kuy dox ci social ak dimbale jigéen ñi nekk ku dul tànqam lu kenn te lépp luy jëmale réew mi kanam jàpp na ne war na bokk ci ñi cay njëkka a teg loxo li ni mel moo waral mu xam lu baax te di ko jëfe saa su nekk ak fépp fu mu mën di nekk